Biram Bakhoum Babacar Ndour bu la neexee Biram moo féete Biram Bakhoum moom nga jàppale mooy njaago bi rek del wax njaago la. arbitre bi sifflé na dox ci diggante Biram Bakhoum ak Babacar Ndour mooy final poids léger bi Biram Bakhoum moom moo leen wan moom moo féete càmmoñ ngemboo ngemb lu ñuul li Babacar moo ngemboo ngemb lu weex li Biram Bakhoum nee moom mooy njaago bi. Ndeye Mbacke doxalal doxalal Ndeye Mbacke. Biram Bakhoum. ak Babacar Ndour final poids Jam Production Fatick Wassare Lamb ak Leewtoo TV Babacar Ndour Bakhoum ndeysaan nee na ma ne ko sànq noo mu ne ma njaago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 ñu ngay damante baaraam. ndeysaan Ndeye Mbacke sama xel dem na ci Zeus borom Brésil Séeri Faati sama xarit bi kenn du moom ndeysaan yaa baax ci man sama waa ji may dee di ma ko wax di ma ko yéele yàlla bébét bi sotti waxtaanu géwél lu mu leex leex nuyul ma sama yaay xaj na ci. ma lay mujj ba léegi njaago wër na ko domba Babacar wër na ko dina daan njaago bi def na kat api wala déet doo ci génn waaw waaw daan na ko Babacar Ndour daan na ko Babacar Ndour daan na ko ndeysaan daan na ko jug leen ñu wéy jug leen